koy amal fële ca diwaanu France mu mel ni bëccëgu tey saa si tembe sax ñuy waxtaan dafa mel ni njiitum réew bu Sénégal daal ma ngay amal wax ma ngay amal añ bu neex a neex neex moom ak kii nga xamante ne ni moo di njiital France ñu koy wax Emmanuel Macron fële ca Élysée li sabab nag dem googee nga xamante ne ni njiitu réew bu Sénégal dem na ko ca diwaanu euh, foofee ca diwaanu France mooy que ni dañ ko fa daal di invité def ko sax invité d'honneur euh, ci ndaje mi nga xamante ni ñii di waa MEDEF maanaam ñi nga xamante ni ñoom ñoo yore ci mbooleem lu jëm ci xeetook wàllu entreprise foofee diwaanu amal benn lël niki tey ak ëllëg ñu daal def nag njiitu réew bu Sénégal invité d'honneur ca noonee sax ca la daal di profito am ci ay simili wala ay waxtu yu bare bari yoo xamante ni dana ko jàkkaarloo tête à tête jàkkaarloo ak njiitum réew bu France Emmanuel Macron ngir waxtaane jafe-jafe yi nga xamante ne nii moom la ñuy dund fii ci biir Sénégal su ko defee mbokk yi rek li lañ leen indiloon ci seen tënk xibaar biir réew ak biti réew nee réew mi wala si a jot moo leen vidéo boo